suuratul humaza saar la woo xam ne Makka la wàcci soo jëlee saar wi juróom-ñeenti aaya la saar wi fanweeri baat la téeméeri xaraf ak fanweer la saar wi nag buñ ko doon jël ci toftaleeg alquran mi ngi wàcci gannaaw suratul qiyaama waaye toftale gi am ci moom moo tax ci dégg-dégg ak yonantu beeg jàngaleem ne nañ ko dugal ci gannaaw suratul asri ndax kat wal asri yàlla da cee gëñoon ne nit ñi perte nañ ne wal asri inal insaana la fi xusri ñu ne ñëpp perte nañ tiit ba saar woowa di jeex mu tofal ci liy wane nag mandargaay pert mandarga yoo xam ne ku ca ne rek sa dund gi perte na ñu ne ko loola lan la mu ne mooy waylun li kulli hummazatin lummasa képp koo xam ne dangay ngay nit ñi buñ fi nekkut ci sa làmmeñ di leen jëw yow sa àdduna yàqu na sa àllaaxira yàqu na koo xam ne tamit dangay ngay ayibal nit ñi buñ fi nekkee ci say bët di leen piis di piis sa moromam gor ci sa gor ko ko mooy lummasa su boobaa ku def loola perte nga ñetteel ba tamit koo xam ne da ngay dagale alal rek di takk di ko def ci ay compte mbaa ngay dugal ci ay coffre-fort mbaa nga koy def ci ay tabax yu dul jeex yoo xam ne doo ca dëkkee dagale alal rek bàyyi nit ñi ñuy sonn nga yaakaar ne sa alal jooje mën na laa teree dee yàlla nee na perte nga moo tax mu ne maanaam moo tax mu ne alladi jamaa maalan wa addadahu yaxsibu anna maalahu axladahu perte gaa tax nag mu ne kàlla la yumbatana fil xutama ku ñetti melokaan yi di jëw nit ñi buñ fi nehut kooku mooy hummasa nga xam ne moom la yàlla xasee woon Waliid ibnu Mugiira hammazin mashaa'in bi namiim waaye tamit koo xam ne tamit da ngay jëw nit ñi ki say manière buñ fi nekkee kooku mooy lummasa wala talmisu anfusakum wax na ko ci beneen aaya su ko defee wa minhum man yalmisuka fi sadaqaati wax na ko ci yeneen aaya moo tax ñenn ñi bañ na benn la ñu ne déedéet du benn allamsu ak xamsu nekkuñu benn xamsu mooy jëw nit ñi bu ñu fi teewee ci sa la fi teewut ci sa làmmeñ lamsu mooy jëw nit ñi buñ fi teewee ci say bët ñaar nag benn baaxut ci kon nag yàlla ba mel nit ñi perte nañ gëñ ko ñëpp tiit mu ne nag lii wane perte mooy ku melokaanoo ñetti melokaan yii su ko defee tamit nag kon loolu lay saar wi di jàngale saar wi nag ñu ne mi ngi wàcc ci umayatu nu xalaf ñi ne asim nu wail ñi ne axnas ndax ñoom dañ daan jëw yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bu fi yonantu bi nekkul rek ñuy yàq deram ci seen làmmeñ donte deram ba yàquwut waaye ñiy yàqoo ñoom ca deru yonantu ba bu fi yonantu bi ne nag ak nit ñi ñu wër leen ñuy piisante ci seeni biir am na nit ñu sew ñu mel noona boo toogee nga toog rek mu wóobi la wala mu jël maanaam loxoom yi am kum joxoñ fekk yéen ñaar am na ko dox ci seen diggante moom xamu ca dara loolu melokaanoo nit ku sew la melokaanoo nit ku manki la melokaanoo nit ku bon la kon kum nekkoon ki sa jikko na ko jéem a bàyyi ndax yàlla nee na ku nekk ca loola ba dee bàyyiwuloo ko am na xur wu lay xaar ci safara moo tax mu ne waylun moom la hubbee saar wi kon nañ ci bàyyi xel moo tax mu ne bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xewalaa koon bépp mbindéef ci àdduna bi arrahimi buur bay xéewal ko soob ci àllaaxira waylun xur wa ca safara li kulli hummazatin ñeexal na képp koo xam ne ayi balaa kon la nit ñi ci làmmeñam ci fàddu lummazatin kay ayi balaa kon nit ñi ci teewaay ci ay bëtam kookaay kan mu ne allazi mooy nguur sa nga xam ne jamaa dagale na maalan alal ju bari wa addadahoo mu bari lum koy konte wa addadahoo mu takk ko wa addadahoo mu xadul ko ngir jamono ju ñëw ca kanamam def ko dara nekku ca waaye li ko yàq mooy yaxsabu dafa njortu anna maalahu naka alalam jooja bu dajale axladahu dana béelal ko ku yaakaar ni alal dana la fi tax a des sa lépp yàqu na kàllaa sama borom ne nim yaakaaree mbir mi demeewut ko de kàllaa bërig alal taxut a béel la yum basar na def na sànni ko moom mooma fil xutamati ca safara suñu tuddee xutama ca dara kaat ya la day mooñate ciri doom aadama comme ni boo jëlee dugub dugal ko ci machine ab wal na mu koy koy mokkale buñ ca dugalee xéeféer yi noonu lay mokkalee seen yax ya ak seen cër ya wal ko ba mokkuruk moo tax yàlla tuddee ko xutama ma ngi koy firine ne wa ma adraka mal xutamatu ana lëf lu màgg lan moo la xamal luy xutama mu ne moom de naaru laay safaraaw yàlla la al muuqadatu ba de buñ taxal allati safara wa nga xam ne tattaliu dana yër dana lakk alal afidati ca xol ya dana lakk jëmm yi ba lakkaale xol ya innaha naka moom safara woowa di xutama mu sadatun lu ñu tëj la alayhim ca xéeféer ya cay dugg buñ ca duggee nag fii amadin mbir muñ leen xeew ci ay keno mu maddati yede yu ñu tàllal yu njëkkati ca kaw ca lañ leen xeew ba nga xam ne kenn du rëcc kon yaakaar naa ne lii lu ko nit jëndee jëru ko képp koo xam ne yaa ngi jëw nit ñi ki sa làmmeñ mbaa ngay jëw nit ñi ci say bët mbaa ci say manière wala nga yaakaar ne alal dana tax a béel mbaa alal dana tax nga gën ku ne te ameewu jikko ju koy wane su boobaa nga yëg nga ñàkk a yëg lii yàlla xase woon umayatum nu xalaf xasee ko asib nu waa'il wala axnas dal na ci sa kaw am na ñoo xam ne buñ ñu xamee alal rek xëppale seen boppu nit ñi xëppale seen boppu seeni xariti démb ya ëppale seen bopp seeni mbokk ëppale seen bopp seeni xameel bu leen yàlla ganee ba tànk jox leen alal ñi sensé garant place sensé ay xameel danañ dem ba sensé numéro téléphone sax yaa leen xamee woon démb dootu leen ci mën a jote jotati tey su ko defee nag di fuuy di néwi rek maanaam mel ni ballon bu ñu wal ma ne kuy néwi néwi luy funkulu di wali bakkan ngaa yàkkamti xaaral ba dugg ci biir bàmmeel da nga doy lu ci néwi ku ca xas dugg da nga doylu ci newi kon di newi newi luy rëy rëy luy funki lu yàkkamti rek la waaye bis boo dee ba ñu la ci bàmmeel da nga xam ne loo doon jaay da nga foofa kon nag saar wi wax naag jëwkat yi waxoon naa ko fi nekk nañ fi coow fi suñu réew mi lekk yàpp mbaam ma ne lekk yàpp mbaam yàgg na fi di ndax képp kuy jëw nit ñi yaa ngi lekk yàpp mbaam yaa ngi lekk sax lu gën a xées lekk yàpp mbaam mooy yàpp nit ayuhibbu ahadukum an yakula laxma axiihi mayitan fa karihtumuhu yaakaar naa nag beddam nit moo gën a garaaw mbeddam mbaam kon jëw lu bëree bëri la ci di jamono dafa mel ni dafa saf suukar ba kenn ku ne ma ngay jéem a xam lam saf su boobaa nag kon suñ bañee mucc suñ bëggee mucc ci mbugalam yàlla mii nañ bàyyi jëw nit ñi yàq seen der yi ne la sa bopp doy say ayib walis ayib yi keneen ku ñuy wax ci moom lu ñaaw artul ñooña suñu bañee nga jug bàyyi leen fa waaye bu ñuy wax nit ci lu ñaaw nga déglu ko yàkkay jëw yéen a xem bàkkaar loolu la yonent bi wax te loolu moo bëri waaye da ngay toog sax ñu yàq dërum nit nga koy yokkal xanaa kay loolu day door a feeñ rek man kay li ma xam ci moom nangam ak nangam ak nangam kon tabaarakallaahu nit ñi ku leen topp ñu yóbbu la safara waaw te yonent bi na ko nee na nit ñi li leen yóbbu safara la ci ëpp mooy seen ngóobitu làmmeñ wa hal yakubu naasa fi naari illa xasaidu alsinatihim mu ne li ëpp ci nit ñi seen ngóobitu làmmiñ moo leen dugal safara wax loo war ta rek loolu rek ci ngay nekk bala nga xamoon ci lu baax lépp yàqu ñu mujj ki ña nga doon wax par ñu topp la nga safara yàlla nañ ci yàlla musal